ñoo leen di may seen émission ngonal. Euh, Samb. waaw Alaaji waaw. nañ sant yàlla bu baax. xew <laughs> <laughs> nga may réer tey baroo réewul nga may réer dama da ngaa wuyu rek. dama wuyu. xam naa fa nga jëm. <laughs> waaye xam nga ñaar ñuy war garab. boo fekkoon commencement ba doo xam ko ci dàq morom. dama la dama dañoo xamante ne. sa xel mi dem. la ya li nga nar xam naa ko. <laughs> dañoo xamante de. waaw yàgg nañu. Sadio ñu de yàgg nañ ci jaar de. Samb émission bi. waaw dañuy sant yàlla. waaw dëgg la. parce que waa bitim réew. Mm-hmm. dañ ñuy woo di ñu félicité. bul tudd Espagne de. Euh, tey fi ma dem dina la jommal trop. fan. kii ma lay présenté mooy Aminata Thiam. moom gis naa ko mu toog. waaye ñun gutan tak. Hitler nee ko gutan tak. gutan tak. gutan aar mu ne lan. guddan Abend la ñuy wax heure bi muy guddi. waaw guddan. Abend Samb daanu nga nag guddan tag nga koy wax. ma ni wax ko guddan tag loolu amul solo ñun suñu jigéen ñi damaa gis ñuy teg cheveux naturel yi muy wàcc moom mais bosam daa wuuteeg bi ñuy teg. bosam daa bi jaaw bosam daa bi jaaw. bii bu naturel bi la. waaw mais bi bu jaaw bi. waaw xanaa almaañ rek la am. almaañ seen yëppay dëgër. non fépp la am mais dafa xew moo tax. gisoo sax moom ni muy xoolee daa dëgër dañuy xujju rek. Ah. <laughs> attaqué nu. almaañ seen lépp a seen lépp a dëj. dégg naa bu ñu la tëjee. waaw. kaso. way yaay lakk naa alaaj. tey lépp fa nar a fi ñëw. almaa fi ñëw. mbay. mbay mbay mbay. non il mbay ñëw. ñoom ñu la parce que lii mënu ma cee continuer. mbay am. oh, oh waay ataaya ja tuuru na waay. moom mii. li nga tudd Hitler moo tax ma tiit. <laughs> seet waaw nga moom mii. waaw. dafa bokk ci association fële ci almaañ waaw. te xam nga almaañ ñun yebu ñu koy waxtaane fii ci ngoonal waaw ñu bëggoon rek mu wax ñu si dara Aminata seet Sénégal a lay déglu lu lu lu yow lu xew ci almaañ waaw loolu moom dinaa ci sawar trop ma tontu ci waaw euh, tudd Aminata euh, maa ngi dëkk euh, Allemagne mhm. di dund Cologne fan nga dëkk Cologne Cologne dëkk bu ñu naan Cologne xaal ak Cologne fa la alaaj yow da ngay perturbé rek quoi. waaw moom lay comme li mu ko waxee noonu likkoloñ moom la suñu maam yàq daan likkoloñ. waaw euh, non vrai bi non bi mu ngi tudd eau de cologne. waaw donc cologne googu la joge waaw. Euh, ma nekk foofu nag xaw ko yàgg mm-hmm. tuuti. Mm-hmm. Euh, may nekk si benn association des jeunes sénégalais en Allemagne. waaw loolu la tudd donc ma créé affaire boobu parce que. damay wax ni nit ki. Hmm. li nga dund. Hmm. loolu nga mën a am leen benn. may ma may ma yow xalamal ko xalamu Allemagne. <laughs> dafa mën. def na dëj. amee continent. <laughs> waaw ma am leen expérience bu bu bu ndaw boo xamante ni lu ma dund foofu. waaw ba tax moo tax euh, ma am. Euh, euh, mbaa jàmm la loolu. am na jàmm amul jàmm donc. maara day yim si <laughs> lu xew. ah déedéet ne parce que nit ku nekk lu buy dund rek y a des obstacles dans la vie. loolu am na. waaw donc moo lay tax tamit euh, nga doon après voilà. très bien waaw. donc euh, dama siy sant aussi yàlla euh, ma am si loolu nga xamante ni ma am lu baree bari lu ma si dund. ma ni ñun da ngay gis koo xamante ni dafay ñëw jàll am si yu mu jàll mais du wan ñeneen ñi yoon bi. waaw ma donc ñeneen ñi nga xamante ni ñoo fi jàll. man damay wax ni yoon bu amee xaaxaam. Mhm. boo fu ñëwee fekk ko fi da nga ko war a bale mu set. comme ñi fay jàll bañ waaw. voilà mais da ngay gis euh, la plupart les africains bu ñu ñëwee jàll rek ñoom après du ñu wan yoon bi keneen donc la vie c'est pas comme ça te Allemagne dafa doon dëkk bi nga xamante ni. Euh, dafa fermé wu de trop. waaw c'est difficile. Euh, surtout premièrement langue bi. langue bi diis soo ko déggool donc si lu bari doo si mën a jàll. waaw te ñoom loolu ñoom dañ ciy forcer nit yi pour ñoom ñu ñu jàng ko. ñu jàng ko waaw donc soo ko jàngul munoo def dara si Allemagne. Mm. waaw ma ni pourquoi pas moo mobiliser les jeunes parce que euh, damay wax ni jeunes mooy avenir. waaw moom moo ñu mobiliser wu euh, ñu xeex leen li nga xamante ni mën a kas ñu ay droit waaw mën a àndandoo liggéey benn affaire yi. ak aussi que ni ñu xamul ñu xamal leen fi nga xamante ni ñoom moom la ñuy jàll parce que am na ay étudiants yi nga xamante ni dañuy ñëw Allemagne pour continuer seeni études uh-huh. mais bon dañuy am ay difficultés parce que duñu xam fan la ñuy jàll waaw waaw yéen xanaa amu leen amu leen amu leen euh, amu leen euh, euh, ambassade foofu ku leen représenté ci amul amu leen ambassadeur si am nañ ambassadeur waaw alors donc mais cas bi dafa c'est un peu critique foofu Euh, donc euh, ma jaalale ko tamit aussi ndax euh, dafa doon message bi nga xamante ni sénégalais yi moom la ñuy jooy foofu. muy ñag yi ñag moo fa nekk moo fa mooy boo wootee moom ngay jot. waaw déedéet déedéet déglu déglu déglu. <laughs> dégg nga la kii wax déglu waaw moom moo tax moo nekk da damaa bëgg nga rewind këf ki <laughs> ñun ay sénégalal lañu. waaw ñun sunu làkk boo déggee ñu ne diw ñag la maanaam nañ ma baal mooy que les Camerounais les les les les les les waaw waaw ñi nga xam ne ñu ay les Ivoiriens ñooñu ñun la ñuy wax ñun ñàkk bon ñun dama ni la ñun am sunu doomu réew bu ñu toogal ca ambassade ba di di protéger sunu doomu réew ya ca almaañ nga ne ma ñàkk man li may wax euh, fu leer laa ko teg parce que man duñ ma wax rek après ma jóg wax loolu. waaw da man maa jël sama téléphone ma woote. waaw bu ma wootee ñag bi laa fi laa jot. waaw donc ma xam ni kon nit ñi liñ may wax dëgg la. kon kooku du ambassadeur ba. non mais moom lañ fa teg mooy liggéeyal euh, sénégalais foofu. donc donc man wax naa ko euh, lu bari bañ fa ñëwee aussi ñu seet si ñu wax naa ko fa donc man loolu lu ma bëggoon la lu ñu xeex ko Allemagne dañoo juum dañoo juum bëgg naa ko trop ñu ñu ñu. xeex léegi yow looy digal étudiants yi nga xam ne ñëw nañ fa. étudiants yi lan laa leen di lan laa leen looloo tax ñu créer association des jeunes sénégalais képp koo xamante ni ku si am problème rek. wala nga bëgg xam yow nan ngay def ban yoon ngay jàll rek pour mën a dem. nga nga contact ñu parce que ñun déjà ñu ngi Facebook ñu ngi fépp. Mhm. nan ngay contacter bu dee Facebook lan ngay def. association des jeunes sénégalais en Allemagne. en Allemagne waaw donc soo ko defee rek euh, di nga ñu gis. Euh, nga mën ñoo contacter ñu teg la ci yoon bi. ok yéen da ngeen bëgg. Mhm. di tëb ambassade bi. yéen seen yëfi bopp ngeen doxalal ko seen bopp yéen sénégalais ya fa nekk ngeen wut seen association boo xam ne comme Maroc def nañ ko. Mhm. parce que am na am na am na am na am na association bu mel noonu. Mhm. avant ambassade yi parce que ambassade yi léeg dañuy yéex. trop yéen ngeen wut couleur goo xam ni. tolof tolof bu ngeen fa am wala ku fa wàcc bees doon doomu réew mi ngeen wax ko yoon bu muy aw ba mën a dégg langue bi ba mën a am accessibilité ci li mu bëgg ngeen wut kuréel googu loolu ngeen bëgg voilà loolu lañ bëgg mais ñun lépp lu ñuy def rek euh, du ñu ci génne ambassade bi. donc day day doon loo xamante ni dañuy jàppoo ñun ñëpp liggéey bi gën a ah, gaaw. ah ñag ji nga wax ma xaw a jaaxal nan la ñag mën a kiiwee. waaye loolu xëy na bis bu ma ko waxee pour ba ñëpp sénégalais dégg ko. dinañ ci dinañ dinañ ci am euh, kii. du loo xamante ni ko ni affaire de raciste la wala dara mais. du ñu mën a fajal li nga xamante ni moom lañu bëgg parce que en tant que sénégalais dina xam. yow li ngay sentir. président Macky Sall man saa man maay wax. ñag boobu nu ne dafa nekk ci sunu ambassade ba ca. ca gudan tag ja ca Allemagne. lijjanti ko. ay situation yoo xam ne lay indi. après day incontrôlable. ñag bi lu muy woyu wala yéen est-ce que enregistré wuñu baatu ñag te ambassadeur ba di tayala liggéey yi am enregistré baatu nit <laughs> bàyyi ko ca répondeur ba. ku li mun la tisee ko. Ah, mën naa nekk vérifier leen ko. non loolu moom deful loolu. loolu ah. deful loolu. da lay wuyu daf wuyu. yow nag ah. Euh, kii damaa bëgg mu ñëwaat. waaw. ngoonal. kii li muy wax naqari na ko de sëvaam bii mu teg moo lay njëkk a wan ni <laughs> li muy wax naqari na ko. waaw te kii bu jàppee ñàkk ba dina ko door dama lay wax ñii seen seen prisonnier. waaw buñ la tëjee. waaw boo deewee sax duñ la jox say mbokk. dañ la fay tëj bu dee vingt ans nga dund ko fa néew ñu lay doog a joxe. ah déedéet man damay wax ne almaañ man <laughs> sa paas da moo jeex fi mu nekk di sa paas a jeex waaw lu ñuy tëjee néew waaw almaañ nag maanaam bu ñu tëjee ba nga des prison vraiment soo sa euh, Aminata kontaan nañ message bi gars yi dégg nañ ko incha allah li nga bëgg président Macky Sall dina taxaw ndax Samba wax naa no non non na wax dernière ci moom lan ngay lan ngay xaar ci réew mi ci njiitu réew mi ah su njiitu réew mi man la laa ci xaar si moom euh, mu ñu surtout ñun euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk Allemagne man damay wax ni dañoo fàtte ci lu bari te si lañ bokk donc nous sommes des citoyens sénégalais ah euh, war nañ ñoo war a boole ci yëf yi donc Allemagne da ngay dégg doo ko dégg fenn ñun dañoo fàtte ci lu bari te pourtant ah, ay jeunes yu am jom ñoo fa nekk. di liggéey. merci beaucoup. oui ma sànnil quelques mots en allemagne foofu en allemand. ci ci waa allemand. man ca xanaa sénégalais ya ca allemagne. lan la bëgg a wax nga wax président bi mu mu yërëm leen. Ah, wax ko en allemand. yaa li mu mu ne. Ja, liebe Leute, ich an alle jungen Senegalesen, aha. die in äh, Deutschland leben. Äh, ah. ich war hier heute bei Gondel und äh, haben wir unsere schwierigkeiten. <laughs> <laughs> li fi mu jóg dama dama def alaaji yaa indi ku ne indi ba lan ngonnal bu ko defee iti leer yeewu jël si waat ñu ñoo bañ alaaji sa gan gi damaa tiit ba may ma ko ataaya te ataaya ji pare na de man de célibataire nekk te célibataire alaaji kii sa lekk la waay yow ko lekk kan benn allemand benn allemand tikiñee bu fi ñëwoon. allemand tikiñee wala allemand. allemand tikiñeen la. allemand ñee waaw. jóge ca itilaire. leer ñëw di ñaxtu. allah ji indi ko ci kër gi. amoo gan tey moo taxoon ma bëggoon ko fi. ah bañ a am gan gu mag. ko am. gan gi ma am tey. waaw am jom. parce que tey nag da ngaa saraxe sa bopp. yaa li muy doose ni da ngaa weex. tàngal meew xamoon nga tàngal meew. waaw benn dërëm la daan jar. waaw nga ne kon san sew ma. kañ sañ-sañ nga. Hmm. mais dama doon. la la paix. waaw nga ne ko indi bëgg mu présenter boppam. waaw Baro ñëwal Baro na jóg. Baro daa xam ki nga indi. xam na ko déggoon naa ak moom téléphone. ñëw ah, léeg kan la noonu. kooku. ak leen wërsëg dangay dox moom mu daagu. daagu yàkkamti lool moom mu daagu. nga dëgg. soo xaaree ba sa bés ñëw nga jariit ñu. le 8 avril waaw waaw. suñu borom. ñëwoon na fi demal demal demal. baru wërsëg dangay dox moom mu daaw. toolal ma ko yow. daagu. boo xaaree ba sa eh. ñëw nga jariit ñu. ci yàlla suñu borom. muy lelelele. a way. laalal dénk yow xàqandikul tëf bu dee ñëw Cheikh Ndiaye. day ñëw par force. ca yàlla suñu borom yenn way yi ku saane. bu ma gum xaaral ma dem bu xasee bay dem. bu bata mën a koo téye ah. leen. man bëgguma ngeen ma ko 100000 am leen jom may ko nag yéen ñaar la fi way ma sey ko faale moom la damel may góor bi ci njëñeen baay Mouhamed ak Aminata bi nag ay eh, eh, eh, ak Mouhamed ma ak sugeer ak naat piir la mënoo way émission bi ah, la leen di nuyoo nu ray tëjal gémmiñam gi yow tëjal gémmiñam ba ma fas ñoo fanaanoo dama leen a fanaanoo oh, oh, ah, ki octave lay woy maa la xamal benn affaire de kii fa muy woy xale bu ko way dee gone yii di way ah. bu sabar demul waaw musique demunu ah. koo ci ni neer dell mu rox du dem <laughs> du dem <laughs> ñëwoon na fi ngonal ma wax la ko waaw waxati nga ko aj na ko ca kaw ni kii ak Aïda Samb gis naa leen ñuy way ci fit goo xam ni mm-hmm. ñii di way ci senegal ñeme wuñ Samb ko njëkk wax ba mu xëyee mm-hmm. kii ak Aïda Samb gis naa leen foo xam ni ah, waykatu jigéen ñii di way ah. dinañ dañuy lekk ñëpp <laughs> non moom du waaye yooyu ah waaw waaw. kii lay wooyee. naka def. bandil la ana sama waaja. nan la ñu waxee day topp ci. moor maane. al toppe waaw al toppe day bëgg a dee. ndax xam ga ne xeetu way yii. ku la koy wayal ci lal ci yenn heure yi. Eh, loo ci xam. da ngay fa am na bu mu wax ba ne. <laughs> xam nga loolu. boo ko dëgtalee ci nopp góor yenn heure yi <laughs> way sama nday ji muy wax way caa jooy nu mu tudd moom da ngay dotam da ngay dotam nu mu tudd moom da ngay dotam naa taxa ah, ah. borom këram nu mu tudd moor ku baa ma sa jaaxal moor na ba noppi rek <laughs> waaw lu tax ñëwul tey ñëw na ñëw tey nag eh, ah, eh. ma nga ca oto ay ndaanaan laa mu àndal surtout ndaanaan lu mag nag parce que man bi may dugg ci kër gi ñoom dañoo jiitu enjoy naa benn booy bi lukkin naa ko. muy kan lu mag la. kan la bëgg naa ñu ñaan ko. mu ñëw. kan dina ñëw xaw ma ci diggu émission bi la. xam naa mi ngi ci gannaaw toog. xam naa bi dina ñëw. xam naa ah. lu ma ko nawee. musta wax lu ñaaw. man dama koy suivre de. dina ñëw musta wax luy xaajale. dina ñëw moom kooku loolu seedal naa ko. RG la de léegi kii nag lii la ñu xam non man nag damaa man nag man nag espion laa de. waaw RG la lii la ñu xam wuyu ma. alaaji waaw. defe naa ni. Mm-hmm. kii présenté na boppam. waaw yow sama tàngal bi lakk na booy. kii kenn dootu ko présenté ci miim réew. dëgg la Daba Seye ci mënu wooyam. Ah. Daba Seye ci respecté doomu aadama. waaw dëgg la. Daba Seye ci jox cër moromu artiste am yi. ndeysaan muy góor muy jigéen. borom këram. daba sëy bëgg borom këram fonk borom këram respecté ko toog ci wetu borom këram loolu àdduna bi yëpp seddal nañ ko séyologue la séyologue bu mag àdduna bi seedal nañ ko donc musique Sénégal bi ñu nekk nii defe naa ni amatu lu mu fi prouvé lu mu def rek dessert la pomme ak poire ak banaan ak orange lay doon <laughs> waaye lekk gi mat na sëpp du ma ñibbeeti ah, ay ah, muru tataa ko bundu kam mm-hmm. dootan <laughs> dootan génnal daba yegg si nga jàmm ci ngonal uh-huh. ñëw nga fii nga war a ñëw mm. boo fi ñëw li da fee war a ñëw te ñëw fi nag sax daa jot nuyool nuyool ci résidence maam njëre ji waaw parce que euh, fii bëgg naa sax nga noppali suko fi après après mbir mi tànn nit neex ànd ak ñoom fii ngeen yenn fi avant ak après waaw avant ak après am na piscine am na ay néeg am na salle de ak géej géej répété am na ah, lépp macha allah résidence Mame Ndiaré daba nuyool waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam déjà maa ngi leen di nuyu yéen ñi ma fekk si ci plateau bi. di am mbégte ci yéen dellusiwaat ak yéen ci émission euh, ngonal mais di nuyu waa Sénégal nag di nuyu àdduna bi yëpp parce defe naa ni ngonal moom émission la boo xamante ni bokk na ci meilleure yi donc maa ngi maa ngi leen di jaajëfal baax di nuyu tamit askanu Sénégal. waaw di nuyu kër gi tamit TFM maa ngi leen di sargal bu baax di leen nuyu. waaw. kontaan ci yéen. di nuyu Baro sama xarit. comme ni ma ko waxee alaaji. waaw defe naa ne mën ngaa songu direct de. waaw directement rek. waaw ndax moom parce que kii xam nga ñun amatuñu. mbër mu mag ma. waaw waaw waaw. waaw euh, Daba. oh. grand théâtre Daba nga dugg. Mm. Baro xalam. Mm. lan nga yëg ba tax nga ne der yuux man xam nga xalam dafa bokk ci loo xamante ni dafay dafay waxuma sax li ma ci woy mais dafay tooyal sama xol. xalam bi waaw. man jamais ma déglu sama samay woy à part nga xamante ni ñoo ma fi jiitu nekk fii maliens yi ñëpp ci lu may déglu. looy déglu yow. waaw maliens yi lu tax maliens yi ngay déglu. parce que dafa dañu am ndeysaan. Ah. maanaam li ñuy woy dafay dugg ci xol. sàmm maytul ma woy bu amul ndeysaan. waaw ba tax na xalam bu ma ko dégloo ay xeeti kora ñoom bokk nañ ci li li may li may woyloo ñoom. ndeysaan kon yow mën nga woy bambara waaw dinañ ci ñëw après kon eh, mais sa Ndiaye hmm. jigéeni Sénégal ñiy way góor ñi yóbbuluñ leen dara de mënoo lim benn jigéenu Sénégal way te du ndaanaan la moo fi nekkee di lim da ngay juumee ay ndaanaan lañu ay jàmbaar lañu dëgg la ay guerrière lañu waaw ñoom ñëpp nag wallaahi ku ci toogoon fii rek nga nga nga nga nga ni ndeysaan nga ni ndeysaan billaahi daba daba sa carrière musicale mhm. boo koy jàngat ba Sénégal day tudd Daba Sëy ba macha allah fi nga egsi nii lan nga ci jàngat ci loo xam ni danga naan si c'était à refaire dama koy defaat tout de suite du ma hésiter mhm. mais si am na loo xam ne si c'était à refaire te def naa ko damay dellu gannaaw immédiatement mhm. lan la lan ngay def loo xam ni yow xamoon nga ni si c'était à refaire tout de suite da dellu gannaaw. li nga xamante ni ci sa carrière musicale loo xam ni njottu nga ni moo la xaw a tardel tuuti. loo xamante ni nii moo a xaw a tardel man nag Sanekh jàpp naa ni tardé wu ci musique. non non waxuma ne danga nga ci musique parce que ku nekk man sama mm. sama carrière artistique. Mm-hmm. footballeur bi euh, papi mii di jël son kebe mii di di def caméraman ñëpp am nañu loo xam ne ci sunu carrière artistique si c'était à refaire. duñ ci dem parce que xaw nañu tardé tuuti waxuma ne da nga tardé. waaw amul ci regret aw ma ci lan nga ci def loo xam ni xam nga ni buy defar da koy def parce que bokk na ci loo xam ne avancé na la ci musique. waaw mooy traditionnel. moom daal nga gën a ah. bëgg fi mu nii wékku. parce que moom lañ moom. dëgg la très bien. moom lañu moom. yow xam nga ne loolu moo lay avancé ci sa musique. dafa bëri ñoo xamante ne dañuy sollicité Daba Seye. waaw pour mu def traditionnel ca moom Daba Seye en tant que artiste bi. xam na ni traditionnel bokk na ci li koy jaay. mais dama digoon nga ma ko ci bi nga fi mujjee ñëw te defoo ko. ah si album bi maa ngi ci mais def naa ko. waaw mhm. album bi jàmmi Sénégal traditionnel la. jour ji euh, traditionnel la géwal la traditionnel la. Mhm. ah euh, suunatu traditionnel la. def naa ci ay morceaux traditionnels. yu bari waaw yu bari. ci album bi ci album bi waaw yu bari yu bari yu bari man man li ma bëggoon wax mooy laajoon naa ko ko dinaa ko laajaat. tay ji neex na de kon bëgg. comme que dem comme que grand théâtre bi. après danga ma ci may ma ataayaal Mor maa ne ah ah dégg nga loolu. Mor day naan ataay te forte kii waaw n'est-ce pas. donc euh, daba ñëpp daa am lu nga xam dañ ko doon xoole ki nga xam ne magam la ci musique fii. magam la ci aar. te daan nañu xool ñun ñëpp naan kii dafa ndoro Kumba Gawlo Seck. muy kan moom daba mi waaw. daa nga fàttaliku. waaw naan dafa xaw a yor baatu Kumba Gawlo Seck. waaw bon Sénégal yëpp dañ ko doon wax. waaw man barki démb ma toog liir benn journal ñu bind ne Daba dafa demoon ci benn plateau ma dama ko lire de. Mhm. ñu waxuma nag am na ou waaw dafa toog ci benn plateau journaliste bi di ko wax waxi Kumba Gawlo Seck. mu ko. mu mu ba gedd dem. Eh. loolu la ñu wax ah man eh, loolu laa liir de. non moom ah, dama yëgoo ko moom yàlla dugguwul noonu. wallaay ah, Sané yàlla na nga gudd fan. moom yàlla dugguwul yëg nga loolu ah, wala yëgoo ko. gis naa ko. gis nga ko. ñu bind ko ci internet bi. Hmm. waaye ku xam Daba Seye ku xam Daba Seye. Mhm. Sané. xam fi mu bokk. Hmm. xam ni ko yare ak moom yar bi mu def boppam. Hmm. xam ni yëfu yare du ko yooyu du ma ko def jamais. nit ku yiw nga dara kumba sama sœur la. Mhm. bu dul sax musique bu ñu bokk moom sama mag la ma jaar ci moom liggéeyandoo ak moom. ndeysaan te nit foo jaar rek am na expérience boo fa jëlee. kon loolu ma jël ci moom duma ko xeeb mukk ci àdduna. dëgg la mm-hmm. sama mag la gis nga daf ci am yenn journaliste yoo xamante ni. maa ngi jégalu nag mais nañu xoolaat li ñuy def ñoom ñooy jaxase artistes yi. ndeysaan mm-hmm. man képp koo xamante ni mag nga ma ci aar ma fekk la ci aar. ndeysaan respect bi may xool mag bi ma bokkal ndey ak moom laa la jox. wallaay ndeysaan moom Kumba mosuñu jotee dara mosuñu wax dara man ak moom. ba bari ki dem tase nañ man ak moom mu ànd ak ton Serigne Mbacke Ndiaye mais dafa ma gis ma dugg si ci saase dafa ne aw oh, ma grande ça va bien Daba Seye na nga def. kooku defe naa ne kooku loolu du ko def respect bi ma ko joxoon démb ba léegi moo fi nekk sama mag la ñu bàyyi wax ji ñaaw ji ca xam ni man Daba Sey de xaw ma keneen mais amul artiste boo xamante ni mës naa waxante yow benn baat bu ñaaw te du ma ko jotee sama benn mbokk artiste dëgg la dëgg la wax ji ñaaw non xam nga lan mooy problème bi dañ dul dem vers l'information ci ko bind peut mën na gis rek ñu nettali ko ko benn fii parapé benn mhm. axlul kitaab ñëw rek nettali ko loolu ëllëg mhm. ñoom ñu dem vers l'information mhm. déedéet dañuy tayal léeg-léeg mais loolu rafet na nga jóg ni alors Daba man la journaliste diw nekk ci rédaction wu diw dëgg dëgg hmm. damaa dégg yow ak diw kat nangam nangam daal di woo Kumba Gawlo parce que nit ñi tëjaluñ leen seen bunt bu la ñooñu affirmé nga bind ni ci baati Daba Seye ci kàddoom nee na ma nangam ak i nangam nañu loolu rek mooy seen seen erreur ñenn ñi. loolu la ñuy juume mais bàyyi la les mousson piché. tabaski benn tabaski benn <laughs> tabaski benn ah. tabaski alaaji man man ci loolu. parce que am na ñoo xam ne sax dañuy yaakaar ne daba moo koy def pour wut buzz. non day wut bés. comprendre nga. ah yow da nga dégg ni moom moo ko def pour am na ñoo xamante ne par exemple événement buy ñëw. Mhm. ñu wax ci yow. Mhm. dañ naan non. moom non alaaji loolu du buzz de parce que xam nga sénégalais dafa gaaw a sot. loolu réeroo la sénégalais day sot. tey jii xam nañ ne Daba dafa buddee ci plateau Kumba Gawlo ah. am na ñu bëggoon li am pexe yi ñëw ci programme am dañ koy mere loolu du bës bu baax de loolu bu baax de ah. kay dañu ko def maa ngi ñaan ci barki Sëriñ Fallu mi ma yaakaarul ku dul moom ginnaaw suñu borom nañu yàlla atte déedéet déedéet ah si loolu lay wax loolu bëgguma ma def lu réew yow baale nga ma def lu yare di ko waaw yow baale nga baal mu jàll moom kim ni dañ mayu laaj moom waxaatal baal naa ko ci barki Sëriñ Fallu waxaatal loolu loolooy sa cër baal naa ko ci barke Sëñ Fall laisse mouton puis sa tabaski viendra dañ koy remercier nag waaw parce que suñu grand théâtre bi passé lay lay la daa waay ba ma tëj gémmiñ répétition lay ñëw toog ak ñun ba trois heures du matin cinq heures répétition bu mujj fayoo ko wuñu cinq heures du matin la fa jël mu ne kii rek ah. dali ko jaay may bëgg a jommal de. Ah. waaw de. Ah, man de maa ngi lay ñaanal ci barke Khalifa Ababacar Sy. waaw li nga yóotu ci sa grand théâtre bii. Mm-hmm. yaag ñi nga àndal. yal na la ko yàlla defal defal la ci ndam. mais ci loolu nag man bëgg naa ko ci. man nag man nag man kii dama ko bëgg de. non ah, ah ñëpp ko bëgg fii nag. mais daba Tito bëgg. Ah? waaw Tito waaw. <laughs> Tito ah dama taata nag ak ni mu réeré ko fa nit bët dina xaw a xof nag. <laughs> Ah. dina xaw a xof. daba. ngi fi. Mm-hmm. Euh, euh, fële mi ngi am ba tey Dakar Basse TFM baa ngi fi ñun waxoon nañu sa buntu kër a ngi fi ah bayaalum yoof bi a ngi fi <laughs> waaw ah maam njare ah? gi fi ah Dakar Loisir Club amatul nga mën nga mën a tant ah, ñoom hmm. Miami yooyu yëpp ngi fi <laughs> ah Miami ko songal galaana ah, parce que Soda Bousso moom Soda songul dina gis gaynde hmm. ni la vase yi. <laughs> fonce. fonce yaa tey. Ah. yaa tey soo dama ko nga nekk fa naan ko. Euh, soda gaynde la dama naan la vase muus ah. la yow ba ngay àgg ngay soog a xam ni gaynde waaw ah Daba. Ah. lan moo lay inspiré. nga jël yow. grand théâtre grand théâtre. lu fa yóbbu nit. am nga lu ëpp 1800 fans de. waaw. man da noonu laa ko xaymaa woon. damaa jëlale loolu waaye lan moo fa yóbbu nit. lu fa yóbbu nit. ah fit ak ah, li ngay def ak jom ak mën la ngay def. fit ak mën li ngay def. jàpp naa ni grand théâtre ñett moo fa yóbbu nit. muy. mën a woy. waaw ngaa woy moom mën nga ko. donn woy. donn nga ko say sugeer dama lay waxal. waaw sugeer war a woy. waaw donn woy mën a woy. waaw bi ci des mooy. Ah. fexe ba réew mi nga dëkk. Ah. buñ la ko nangulee accepté la. boo nee maa ngi dem grand théâtre ñoom ñu poussé la ba nga yegg grand théâtre ndeysaan ma nag daba su ma yëgoon ko def stade uh-huh. dëgg boo la noon su bu démb doon tey hmm. barke Cheikhul Khadim ma yóbbu ko stade kon xel mi dal na la nit abdul alhamdulilah yow daba say doo fi biyoon sa doo fi alka kees nag waaye yow kii man mais attendez mais attends mais attends mais nan wax lu da euh, nga may déglu tuuti <laughs> ah. kii dafi biyoon se wala dafi alka kees wala Rihanna wala Rihanna. xanaa da nga ciy songu stade. non kay ah, fekk na. ma lu gumba kay bu dëggee ci xeer. Ah? ah gumba bu dëggee ci xeer lu ñu wax. gumba bu dëggee ci wax. lan lañ ci wax lan lañ ci gumba bu dëggee ci xeer. am na lu tax mu dëgg dañoo wax ni gumba bu dëggee ci xeer yor xeer. Hmm. am na lu tax mu def ko. Ah, man saa dama ni càpp ni grand théâtre xombool gi ma dëkk commune ba mairie xombal jox ma kaasu ataay mairie xombal ji ma juddoo ñoom Matar Mbuub de taxaw ni ma dabase di nga xamante ne xombal nga juddoo samay billet dafa génn ñoom la ñu jënd rek déjà xaajal na saal ba ma jox la sa kër waaw xaar ma ñëw waaw ñëw nag de dama jógee xombal juddoo fa yaroo fa mm. mais dama màggee jak saaw waaw waaw après commune u jak saaw Sicap Mbao jàmm gën euh, le maire Ndofène Fall. waaw ginnaaw bi Pam bu defee lu baax la ba pare ni ma daba di nga xamante ni fii nga yaroo jënd. lu li li li li waa xombal jënd. waaw man la ñu ni deetawaay dama lay wax fit yu ma am ban la bu may gën def ko stade. waaw ñu ni deetawaay. Hmm. Yoff laay say nag. waaw Ablaye Diouf Sane ma yeey xombal nga juddoo jeg saaw nga yoroo waaye fii ngay say di nga xamante ni waa Yoff dinañ la ànd ak yow waaw daw daa nga ñëw waa Saneex ñu ni déetawaay nag Sénégal peuple bi hmm. bu fii mooy wax ak yow avant may ñëw fii ah. dañ ay teraanga day ñëw ci man di ñëw ci man da gis sax ko jënd ni ma macha allah daba sëy mayel banlieue waa déglu dama lay wax benn ah, secret daa jeex kon fi ma lay waxee nii ah. Serigne Fallou rek laa gëm man desewu ma billet guichet fermé waaw dafa nag dama koy wax benn secret ñëwal moom Daba Seye. Ah. moom Daba Seye. <laughs> ku ko wuy ji. Hmm. wuy ji ku mën a wuy ku mën a dem. doo ko dem parce que lu waay xew la rek. xotti na mbubbom sol ko ànd ak teraangaam dem wuyuli la. waaw a ko seedeel loolu. ndeysaan. dama lay wax benn secret. Mhm. ñun ñuy organiser xam nañ ko. waaw moytul ku la ni jënd naa deux millions ci billet. Mhm. ñëw dagg billets yi. ñëw jël 2 millions billets. Mhm. xëcc turuwaaram def ko ci am na ñu ko ñu mu arrivé. Mhm. boo ja fekkee da nga jaay ay nit billet nombre bu toll noonu. Mhm. fexeel ñu laajaat ko billet yi ñu distribuer ko. nañ ko joxe ñuy dem nañ ko joxe. amul benn sens nit jënd 3 millions ci billet wala 2 millions ci billet xëcc turuwaaram sànni ko fa say chaise neutre. jaay say billet te siège amul taali loolu amul sens te veillé ci li ma lay wax nii uh-huh. du ma ci tele laa nekk lu ma xam du ma la wax lu tax ma wax la dëgg la mais veillé ci parce que li mu wax dinaa ci bàyyi xel hmm? attention nga am ku ne damay jàppale hmm. man daba jox ma ñaari bloc billet hmm. jënd na ñaari bloc jàppale na la waaw ci lii waaye li mu saa wax mën na xëcc turaat bi dugal ko fa fàtte sax ne jënd na dinañ ci bàyyi xel euh, ci loolu ndax xel du doy tamit nañ joxe vie artistique dafa bëri ay xaaxaam dafay bëri ñuy ree du ñu bëgg dafa bëri ñuy ñuy ñuy ñuy jëf jëf bu bu méngoog lu rafet fekk ca gannaaw dafay lëndëm dëgg la ci ñun artistes yi dinañu dem ba ñuy faagaagale di naxasal sunuy programme jënd sunuy billet dugal ko ci tiroir li may wax artistes yu bëri xam nañ ko waaw loolu sànneex loolu mbaax la waaw non dama lay wax rek gis nga artiste. ndeysaan day fàggu rek. ay waay man saa neex ndax xam nga dara. non non damay ah. jox baraw mu naan. Cheikh Ndiaye. Uh-huh. yàlla mi ñu tim seede na ni amul sama mbokk artiste bu mës a organiser grand théâtre waaw suñu waa kër ci tele la toog di wax suñu waa kër xam nañ li may wax te saraxewu ma ndax artiste boobu am ndam. ma yàlla ndax artiste boobu am ndam. bu fekkente ni li may wax ni mus musuma ko def man Daba Seye. yàlla na ma yàlla. wan ni ma ni mosoo ko def non ankay kon jàpp naa ni kon jàpp naa ni El Hadj jàpp naa ni artiste bi amul sens sa mbokk artiste bi Thiès ñu la bëggee boo ko xamoon waaw du leen xam naa loolu ah Seynabou Njëgin waaj na bu yàgg. waroon naa wax Seynabou <laughs> Thiaw Njëgin maam As. waroon naa wax Seynabou Thiaw Seynabou Thiaw ah na ñëw day ñëw. jabaram mais kon léegi. Ah. kon léegi daba. Mm. xel dal na. waaw. le 8 avril ca Grand Théâtre mhm. Daba Seye bee yi mën nañ na jeex na guichet fermé la waaw waaw kon Daba li saa wax léegi mhm. ñi jënd bee nañ fexe jox bee ñay seetaane mhm. kay ndax saalam lay wax kay am na ka xam ni dem nañ leen ko am na ka nga xam ni <laughs> tëgg na grand théâtre uh-huh. biyee jeex mu ñëw ba vingt trois heures minute gisulu nit dañoo mujj a jël ay kaar dem ci banlieue bi di jël ay nit kaay leen seetaan si gratuit waaw dañu saay saay am na xaalis donc léegi li ñu bëgg a dëgg la ña nga xam ne bu kenn toog mhm. ña xam ne mhm. a ñëw seetaan si daba mhm. lan lañ fa war a gis ñoom innovation innovation lan moo fa war voilà parce que daba nag bu fa def ñi ñeneen ñi defoon ñëw lal say basang fii lal say sabat fee di kinding kindingi ba cinq heures du matin nga ne au revoir au revoir ah kaar kaar sama catu gémmiñ ah takk la ngay takk dem sa dimanche jëm présidence ak maamaane <laughs> du ma def loolu non il faut nga ak musicien ca kaw waaw on ko ñii bàyyi ca kaw xam nga waxoon ko waaj ba ñu dóor benn ñi il faut nga gis ku ñëw waxtaan di gis kuy gitaar dëpp waaw ñu lool ñëwal nga ne kon dafa ñay affaire yi waaw ñay seetaan waaw sa neex ñay seetaan waaw en tout cas li ma lay wax mbooy boo ñëwee di nga gis spectacle di nga gis lumière di nga gis oh, son di nga gis décor bu baax uh-huh. te di nga gis woy di nga gis innovation de ci Daba Seye super waaw waaw incha allah. Euh, mais yàlla li maye woon rek bu ko bu ko nanguwul. ah, ah ça neex mais daba rek mooy woy daba rek mooy woy mbir mi wala am na ay ay artistes ay invité surprise. ah maa ngi invité naa sama mbokku artistes yi. ah. waaw waaw. non daba moom rek mënu woy programme bu dul nekk. ah man kay xam nga man xam nga nu ma tuddee concept bi nii. Ah. à part jàmmi Sénégal bi. waaw soirée de l' indépendance fay bor. waaw gis naa publicité bi. fay bor ah, waaw nga fay bor da ngeen di fay si. ah di da ngeen di fay si de. Ah, ba booba. man daal ku ma mës a yegg ci seenam. ngoon na laay waxee. woo naa la pour nga ñëw fay si ma. ndax na da nga defe na ma doon def loolu rek ndax. ah maa ngi woon jëmbat la woon dama doon ah, jëmbat rek jëmbat la bis boo xewlee. ñu ñëw fay si bor. Youssou Ndour de demaloon nga ko. ah dama taseeg moom bari ki dem ci biir télé bi. dama ñëw dama ñëw na ñëw de na ah. mu ma daba ça ma ne ko ça va bien Ndour mu ni ma ah, yow du la 8 avril nga wote Grand Théâtre ma ne ko waaw mu ma ah yow kon war nañoo gisee balay boobu wante. Ah. li gën a neex ci loolu lépp mooy yéeg gi nga xamante ni moom am na ko ci man. di wax lu baax ci man mu yëgsiwaat ci man. ndeysaan donc te moom daanan la ci réew mi. Ah, mag nekk international. gëm na la de maa ngi koy ñaanal nag. bu bés baa. laay moom tamit bokk na ci ñi ñëw. moom Youssou de waaw waaw. ñu mhm. mhm. wax si Ndiaye <laughs> ay jé. Ah. fii moom daba say mënu fee wañ eh. lii mënu cee way. <laughs> aayewul noonu. wax leen njaajat njaay fatumata bale yaayam tooro njaajat eh. njaay waalo mbooja aboode awu leen ko alaaji awu ko ah. njaajat njaay Oh. Ah. wax leen njaajan njaay wàllu mbooja aboode njaajan njaay wàllu mbooja aboode tey li tey dégg njaajan njaay ah ah ah dana ah. kaay ma wala nag dama eh. Abdoulaye Daro Mbar ma jorang ma tarak jaalo ma jama yaasin daaru mi ci loo dodoro be mbañ ay waay ko koy wayal du kumba digi ma band gañ si rek mban jigéen Ali Njaay naan lay jiin booy bégal ndaa naan danga koy waxal lu mu mën a dégg Youssou Mari Sène wo wo <laughs> wax leen Mari Sène ah, ah Youssou Mari Sène ma way ah. gawlo bi abu ma ñëwee ci réew mi ay eh, la di daba nan nga ah. waaw daba nan nga nan nga euh, la këy si defalalee grand théâtre bi jafe na la yomb na la parce que mooy sa premier expérience aussi ci ci ci saalu mille huit cent places ah mm-hmm. euh, tey jii Euh, sa ay moromu jigéen yu bëree ngi fi. Euh, yu bëri ah des na ñu bëri ñoo xam ne songoguñ ko. Mm-hmm. ah mm-hmm. xëy na ñu ñu gërëm ci sa jëkkër. Ah. ah gërëm ci parce que moom tamit nitu gaynde la nitu mm-hmm. fit la. ah gërëm ci sa entourage. parce que tey jii ñu ngi la gis ñu ñoo xam ni ñu ngi ci gannaaw gunge la ñoo xam ni ay nitu nit ñi la ñu. ay nitu fit la ñu. Ah, am na ku ma ci am na koo xam ni moom ta ñàkk. Euh, dina ci dina ñëw parce que du ñëw ba ci sunu kër gi mhm. euh, du toog si waaw du toog siyaar parce que nitu nitu gaynde la moom it waaw voilà waaw la lion ah oh, léegi nan nan la nan la nan nga fan nga toll ci expérience bi jafe na metti na bëri woon na ay xaaxaam bëri woon na ay galgal upa waaw waaw bi fi euh, ñàkk nag xam nga lu toll ni grand théâtre dafa diis waaw donc du ni oyof na te fekk na oyoful waaw waaye xam nga suñu borom mhm. am na nit ñoo xam ne ay nitam lañu dëgg la saa neex macha allah bi ma songee grand théâtre yàlla defal na ma fu ma laal mu nooy ndeysaan yàlla day def loolu waaw loolu moom suñu borom defal na ma ko dëgg la ma ànd ci sama jëkkër nag parce que grand boo koy def ci amoo fenn foo wéeru mm. du yomb mhm. ma ànd ak sama borom kër mu génn li mu yor yëpp ni ma acca demal dama ñëw ci Ndiaga Ndour waxtaan ak moom ma ko Ndiaga dama bëgg a def sama projet wu deuxième édition anniversaire bëgg ko ànd ak yéen mu ni ma pourquoi pas dama nga dem Sorano ma ñëw waxtaan ak moom mu ni ma dem nga fa daaw y a deux ans. nga waxtaan ak kan. sama jëkkër waaw. grand théâtre lañ jëm ma woot madame Ndiaye ni ko ah kilifa gi nee na dañuy dem grand théâtre ah, kon grand théâtre rek laay dem. dama fay dem dem fa ak ndigal. waaw donc xam naa moo tax suñu borom ubbi bunt yi. sama jëkkër bi mu waxee rek dama ne ko li nga bëgg rek loolu laay def. exemple dem mais defe naa ni bu Bousso tamit jàpp na ci trop. ku baax la. waaw bu Bousso jàpp na ci trop. mooy mbii bi ma demee. lan la Keysi Bousso di wax. dem premier jour. dama dem premier jour waxtaan ak moom. mu recevoir ma ñu waxtaan. day ndeysaan mu nooyal lépp ni ma c'est pour la première fois déjà damay dam li gars yi fay loolu du fi dañ. mais am naa droit man man ni la ah man kat dinaa la jàppale lii. donc li ñëpp di fay loolu laa fay nekkul coproduction sama produit bopp la. waaye jàpp na ci bu baax. super waaw kilifa yi tamit yaa ngi ma koy laaj léegi. waaw mu mënu ma leen a fay. xam nga li ñuy wax ne dina baax ni jékki-jékki natt boppam mhm. xool fu mu toll ci réew. Mhm. président la république. moom na ñëw locataire dem na. Euh, dem na ñëw na wala ñëwagul. waaw xam nga xam nga dina ñëw. Ah, madame. na ñëw ñëw madame Bosam dem na. moom nag dafa am benn affaire boo xamante ni ci jour grand théâtre bi damay def ndaga bu mag pour moom. madame première dame waaw. waaw da bu neex ci Ndaga Ndiaye Ali Seynabou. non kon doo ñemal tuuti ñu xool. Ah, Ndaga Ndiaye Ali Seynabou Ndaga Ndaga. Seynabou Ndaga Ndiaye. ah Ndaga Ndiaye Ndaga Ndiaye Ndaga. waaw waaw. ñoom Sarr. Hmm? Euh, kilifa yi ñi ñëw bëri nañu. Cheikh Amar ñëw na. Cheikh Amar taalibi sëñ boobu. ñëw na wala ñëwul day ñëw Kader Ndiaye day ñëw. Kader Ndiaye ñëw na dina ñëw ah leer na wax waaw jigéen waañ. Mm. jigéen këram. Mm-hmm. waañ mu am lu la ci gunge. Mm. boo paree ca waañ ba am loo loo sa biiru jëkkër. dëgg la. daba nga fekk suñu kër. ñuy dëgmal sunu ay ñeenti at ñu nit mhm. te lu yàgg dëgg la dëgg la mu am ñu ñu may fit mhm. ñu njëkke ko ci Touba gaz ñii mhm. ñoo ñu njëkk a gëm dëgg la di gaz bu wóor ñu jox leen certification ISO ñu woon nga fekk leen fi yàlla nga fi ñëwaat fekkaat leen fi fekkaat leen fi amin amin amin muy gaz bu wóor yaxan lool di Touba gaz ay doomu réew mee ko moom ay doomu réew mee ko jóge neuf kilo baa nga ne alaajee ko tuddee daj dëpp xam naa ne yaa ngi koy defal ci ngay toggal moor ma. dëgg la bari nag nañ leen gunge si waaw voilà Touba i ñoom ku fi ñëw ñun buñ leen waxee ñu gunge la waaw kon wax leen ku ma woo ma waa Touba Gaz gunge nañ ñu kii moom léegi lay def bosam moom waaw Cheikhouna Mbacké Touré léegi léegi Touba Gaz ah, ah. Touba Gaz hmm. loolu moom jarul bind ñoom hmm. ñoom dinañ la dimbali moom ba pare dama bëgg sax ñu may ma gaz ndax dañu sàcc dem ma gaz ci guddi non daba fi nga ko waxee nag ñaaw na lii ñaaw na nag daba ko waxee ñaaw na tolop tolop ah waaw boo wàccee ñi nga àndal dinañ la may ñeenti pes yu baax <laughs> ñu la yii bu ko waxati non dama bàyyi di ngay dem. dañ ma sama gaz démb ñu guddi. ma yóbbu sa ay ma yóbbu sa ay di nga am gaz. Ah? teefort booy dem yóbbul bii. nañ ma may nañ ma ko may. booy dem yóbbu bii. teefort al gaz bi ngay ñaam ci émission bi. <laughs> dama nag wàññi na ma yow. teefort mais saa neew dëgg la gaz ah boo paree. mais Touba gaz laa bëgg. day ko am yóbbul bii. ah, ah loolu moo baax waay mais loolu moo baax. teeforte. teeforte. Hmm. ataaya la boo xam ne boo bëggee lu fort. lewal ba cinquième ba quatrième moom du sàlli. bu moor bëggee lu waaw bu bu lekkee yàpp ba pare macha allah ndawal moom nga koy jox mu naan. dëgg te gis nga boo koy ubbi doo kii da ngay xëcc rek mu ubbeeku. amul pëndëxit amul dara. mbaa naa ci yóbbaale. waaw sa boso ngi nii. Ah, bii nag mooy sympa. muy na borom dafa sympa moom. boo bëggee lu oyof moom laay ataaya nii. Mhm. moom moom bii mooy bu oyof bi moom laay ataaya nii mooy mooy warga sympa. mais tàngal bii du tàngal rek yam ci moom naanaam la gis na ni ñu ci dessiné naana bi naana bi waaw moom mooy naana waaw defe naa ne war nga ko sant bi nga koy naan ah, mhm. ah nga ñëw ci Cheikhouna Mbacké Cheikhouna Mbacké trading mhm. defe naa ne fekkoon nga ko fi waaw ah? nga ko fi mhm. mooy poudre magique sourire ah, kii xam nga lépp day weexal ba mu weex tar tar tar du dëgg waaw léegi nag dafa am rakkam bu ñëw fekk si ko ok muy liquide magique sourire maanaam bain de bouche la Ah, da ngay jël dafa concentré. waaw def ko ci ndox. Mhm. brosu ak bii. waaw kalax du ko dem. 24 heures sur 24 sa gémmiñ dafay am xet bu ah, neex mais loolu loolu loolu troisième étage mm. foo dugg ci Ndakaaru marché yeeg super yeeg yëpp am na fa lu dëkk ba dinaa ci yóbbu léegi incha allah loolu ko xaajata dafay mais ab neex na yow tamit nag bi ci des ab géwal laa nag ñëw ci waa orange <laughs> saa ñëwul si orange. damay dem géewal nag foofu muy yóbbaale ci yu baax yi ah dafa yóbbaale ci orange bi. <laughs> du bu ñuy màcc nag. ah du orange boobu ñuy màcc. orange money. xam nga ah, orange money waaw orange money xam naa ko. xam nga léegi kenn rangatul di fay say facture déedéet wala di fay sa ndox wala lu mu mënti doon. sa néeg ngay tëdd fay sa néeg ngay tëdd. di waxtaan wala toog sa saal di waxtaan di fay say facture ah mais loolu baax dootoo rang. kenn dootu la tafu doo am problème mu weccit ah, sa oto hmm. dawal ba ci station nga taxaw hmm. essence wala gasoil ñu solal la nga fay ci sa compte ah, orange boutique yii hmm. dugal ci supérette yi casino yi foo dugg defal say achat bul yor xaalis ñu koy réer di ko tafoog di ko kii jëndal joxe sa portable fay ci sa compte orange money saa xam nga ba ci gën a neex waaw boo koy ibbi waaw doo fay dërëm voilà joxal carte d'identité bu dee doomu réew mi boo nekkul doomu réew mi passeport ngay joxe ah, waaw man nag bëgg orange money. gunge ko. mais yow il faut mu jël contact gu saawaay. waaw dinañ ko jël après. Ah. dinaa ko dox waaw dox ko. mu mu jàppale ko ay boo la jàppale. Ah. Mhm. kii prost wëtë. sympa. gis nga ñii borom. Ah. gis nga ñii kii prost wëtë. waaw. boo seetloo gisoo bitel ndox mi ci kaw. waaw raakool bi da koy branché fële. ca robinet ba ca ba. mu ñëw. waaw bu ñëwee mu filtré ko. sellal ko ba mu sell. filtre yaa ngi nii. gis nga ko nii la koy filtré. waaw ah, bii mën na dem ci biir néeg robin euh, robinet ma ngi nii. bu la neexee ah, bu tàng baa ngi nii bu sedd baa ngi nii. lu dëgg bi dama bëgg. ñu ko ko ci ci scène bi. waaw mhm. comme ça musiciens yi tëggkat yeeg yooyu. waaw mën ngeen mën tëgg di naan café uh-huh. loolu yaa ko fi njëkk a def. maa ko fi njëkk a def waaye Sanex. daba man lii moo tax ma bëgg leen sama xarit yi waaye dama leen a bëgg waaye. daba ah. booy wax. ba am ku la waxal. Hmm. noppil ñu woo ko mu wax. Ah, kon jeex na xaaral ma woo sa xarit bi. sooda buso. buso baali. buso baali bu ñëwee ma jox ko sama micro. toj na toj na apa bi. toj na kii toj na fële. nu mu tudd Sorano. toj na Sorano waaw. waaw mais nag alaaji. Ah. nit ku baax la. waaw. waaw nit ku ñàkk. way na fi sax kii way na fi Sane xam nga sooda bu sunu def cent ticket la jënd ci man. cent. sans ticket Sodo Boussa war nañ koo auditer de. Sodo Boussa eh. moo njëkk a jënd ci sama billet yi sans ticket. sans ticket yu 10 000. sans ticket yu 10 000 la bu Boussa jënd ci man ni ma yow sama goro nga dama lay soutenir. ndeysaan. sans ticket laa la wax la bu Boussa jëndi ci man ci télé laa toog di wax. voilà sans ticket yu 10 000 day moom. brique la la ilaha <laughs> loolu la de yong la. loolu lay moom la def. ba pare dina gunge ci sa promotion. ba pare dina gunge nag. di ma jàppale ci samay samay répétition day ñëw toog assister. di la wax defal lii defal lii. billahi di jàpp. soo léegi nii sax bi ñuy tàmbali émission bi ñu xaw a yéex tuuti ma nga ay ayca ay ayca <laughs> ah, ah. waaw. waaw gis naa figel waare doomi buur bu dayet ñaaw ma woy figel waar <laughs> gel waare dégg waaye gis naa fi gelwaare mi bur bu daj ñaaw gis naa fi gelwaare waxal soo de jëri mi ci mbee waaw ni ki lay woo ah. ki la woo war na laa woo wil ki lay woo dégg ko. yéen mi ci mbéy mi ci la. aywa kër gi am na ay gantay. dégg ko ah sama xel dal na. cee dégg. sama mag yi ànd man sama xel dal na. waaye danaa jaaxal bala ba sama xel dal na. dama sëy ma ànd ak gelwaare yi sama xel dal mi ci lingeer bi lay woo lingeer bi lay woo jële. waaw jële nga ni waaw jële nga ni non damaa dégg nga wax benn wax léegi ah. kii da laa way di la way di la ba mënatoo sa bopp téye sa bopp nga ni lan. waaw xam nga ñun noonu la ñu tàmbali dëkk ca kër ga. wallaay ndax gorom mooy suma lépp ak tuddare baaba saa di nuyu mbokku téléspectateurs yëpp. waaw di leen bu baax di nuyu tubaarkàlla yow mi nga xam ne yaa xalal say doomu ndey te yàgg na te boobu ànd yàlla na sax. waaye tey saa. dafa am lu xew bi ma ñëwee léegi sama goro bi daal di may gàttamu daal di mbëpp ma defe ne fa la yem mu roof mbëfër <laughs> ma defe ne fa la mu pelloo ma defe ne fa la yem mu wa dem <laughs> daal di pare daal di taxaw def point ndax chaque lettre nag mbaa phrase bu ñu defee point mooy wax ba jeex na ah, point mooy jeexal wax point ba jeex na virgule mooy pare guma ufelé bi yow mi ngi bëgg a tënk <laughs> jërëjëf Sarata ko xaagaan bi waaye kii saa bi euh, tubaarkalla baro sama xar bi daal di xottatee xalam mi. dégg mu dugg gelwaar. dégg nga def taara sànq. dégg ko don maam yi mu am balaa demel di yeewu ay maama ma koy yee. salata ko xaagaan bi. anta mali gànna paal ma jigéen biram farba samba sa neex sa pindu mbu jire debbu sëy almañik biram debbu almañik ñaari yoon boo naxul sa ndey yàlla du la nax mm. grand théâtre li mu rëy yëpp saa liggéeyu ndey ko gën place ya fa nekk ak les nombre de places surtout les invités et les cartes liggéey ndee ko gën a kon boo fexe ba sa yaay gërëm la ah. waa waaw demal vas-y te ndoo ko ba nga waxee fi tubaarkàlla yaa ngi yaa ngi dërmal sax li ma fekke léegi ma sekk caam sa invité d'honneur boobu mu ma doon borom bàyyi bu ris bi waaye ba mu màggee tubaarkàlla dafa tëral ay askanam mm. nga fonk sa sëyukaay fonk sa jëkkër ak itam dara baaba fonk say mbopp bopp ma bunge si la laata mu lay bunge fekk daan tubaarkàlla def nga li nga war a def te booy bunge doo bunge cuune da di appuyer sa jëkkër ju baax ji appuyer dama ne quand deux verbes se suivent le second se met immédiatement à l'infinitif la nga la le second se met immédiatement à l'infinitif te xam naa sax fa sa duñu faram pàcce waaye bo ma ma ma sàcc ci tuuti rek ndax ña sànq sax yéen a ngi ñëw kii day ñëw ngona ci li ma war a ñëwee waaye li ma war a ñëwee dama na ko sànq yedd ko na ko tënkal bàyyi ma bu ma ñëwee faram pàcce ma daw gaaw ndax solo wu ma sax dama fëkk rek ñëw da ngaa lan waay waay waay may ko nga ne da ngaa lan dama fëkk rek ñëw nga ne dama fëkk rek ñëw eh, eh, na ko dawal ci affaire ak yooyu waaye ci jàmm Sénégal la wootee. waaw ma faram fa fàcce ko tuuti rek. Hmm. waaye ku ko bëgg a dégg ah. ñëwal Grand Théâtre. waaw nga ne yow boo génnee boo génnee ci biti loo koy def. ah ne li ma waay bu génnee ci biti nga faj. ma faj ko léegi bu nu génnee léegi ma faj ko léegi sama oto ma léegi ma faj ko tant que dafa woote jàmm Sénégal. ñu commencé ko ñun ñii. Ah. diggante nag li nu war a def. ak diggante li nu war a faram fàccee ak diggante ethnie yu nu indi ak diggante sonorité duñ ko waxee fii. bu ko waxee de. à suivre déedéet déedéet da ko fay tere déedéet bu ko dee moom laa ko tere. <laughs> ku ko bëgg a dëgg. Ah. da ngay ñëw tubaarkalla fekk nu fa. Mhm. waaw waaye daal wut nañ ay drapeau yoo xam ne drapeau séeréer. Mhm. séeréer mosoo koo dégg waaw. Mhm. drapeau joola. drapeau tukulóor. drapeau manjaago. drapeau tubaarkalla ndax xam nga séeréer yi. fóotkat yi fi mu dama leen way nga pare nanu <laughs> pare nanu rafet ci loolu póot mi voilà ña pare nanu ndey ñi ngi day ñëw ak tubaar kala bambara yi ak ah. saraxule yi ndax li nu li nu li mu li mu sujet bi muy nit ci guddi gi muy jàmm Sénégal di dénk nag jàmm Sénégal lépp mi ngi ci ba tax na yu bari ak secret yi ca war a am saa mhm. ak yi nu war a defee guddi gi duñ ko décortiquer dañ koy bàyyi dëxan ko waaye en tout cas foor nan de ah, ah. foor ngeen waaw waaw waaw wuy ma dama lay laaj benn laaj il faut mu ñëw lay laaj benn laaj nan la la nan la la inspiré dama bëgg nga ñëw ngoon nal Cheikh loolu jëli la ma kii parce que kii émission am Sénégal nañ ci waaw nan la la nan la la ci inspiration yi di ñëwee facilité euh, facilité micro sa dama wax na ko léegi waaw mm-hmm. ñun yaa ngi koy laaj fi sànq waaw li ma fekkee bi may soog a ñëw mm. ñun defe naa loolu xëy na yàlla doomu yàlla te it dënd ak diwlin taxut a niin waay lu yàgg ci diw niin. <laughs> dégg nga loolu. danoo doon li mu doon mu doon li mu doon. dëgg la. yàlla defal ñu ko ci waay bi nu màggee fooyewuñu ko. Mm-hmm. ndax géwél neex na bu na géwél ak a neex waaye kun ko wax neel boo ci boo ko fooyewul. Mm-hmm. dégg nga dëgg a neex nga ne ci boo ko fooyewul. Mm-hmm. fooyewul waaye mi du ko doon. d'accord kon tubaab gis nga ko li muy def. sa loolu yombul yaa ngi koy wax sànq benn xalam mu woy ci matikaal waaw waaw ñigéen wallaahi sali bi nga gën a yóbbu Fallou ko Kor Dior Dieng waaw jox na ko suñu indi yow léegi da ngaa ñëw ci sunu émission bi nangu ko ci sunuy loxo diriger ko damal ah da ko moom nangu na émission bi sunu loxo yéen ñaar ngeen bokk ko ah Kor Dior Dieng sala bi ke ngoone yu go Fallou Yacine Dior Dieng tey dégg yee ah bakkal ma diine bakkal ma diin si ga saala lay jiin jeng faf naa koo naan waaw yaay mariyaane moom moo se talibe Sëriñ Fallu lay jiin si ga Siga Dieng Saala. waaw. Sani Dugue Aram Bakar. ah waaw dégg nga lii. <laughs> da ngeen dégg dëgg de. te ah, nga sakkat géej anta kondaama. Ah. dégg nga lii. yaa ngi way sa ñoñ. ah waaw. maamam ak sa maam. Mm-hmm. wallaay. ñuy gërëm nag xam naa sax dama war a faram fàcce du bari waaye ñi jàpp ci guddi gi. sarata ko xaagaan bi xamoon nga ne yàlla dina la sagal ba jig la sa baay tudd ñu jox jigéen ju baax ja ñu jox jigéen ju yaru ja nga fonk sa ndey bëgg sa jëkkër kor moor ah, way ne way ne dafa jeex saala mi may kor jor jeng sale bige ngone yugo fal yasin weynde dalaro ba mamun jaay bartel njeme kumba sab maam siga jeng sala kay jël sa ay sa yaay maam faama yaayam waay génn leen kër gi maam faama sa maam si ga min la duppee dëgg la waaw ey alaw maram ndooy yusu maram ndooy fukki penc ak ñaari sama mag ji yaa ko moom jeeg ñun ñoo la woowoon bu ko eggali bañal bu ko eggali bañal bu ko bëggee na ko déglu ah waaw théâtre fe nee na bu ko eggali bañal grand théâtre kaay bakkal ma diine kenn fi barke barke ji ko grand théâtre yaayu mama Cissé yaayu Mariane sama mag yee baax déjà war nga ma fukki poudre ak sa payet ba mokk na waaye nee naa la defal nang <laughs> man li si ga jang mel man ah. noonu la maam soxna loo mel ci maan biram njéeme ay sa njaay ah. lay di cogle sare sare njaay njaay alburi a boo daar daar sama mag jaanga nga ma may tuuti bu ma demee atlanta moom lay nekkal yaay bu sa baali alburi li nga war a wax ñoo leen doon may seen émission ngonal